Euh, ni ngeen ko déggee nañ ko déggee Amaro dafa mel ni askan wi mm. askan wi lii nag mooy Sénégal ñii nee waaw ñii nee nañ déet mm. ñii nee nañu sama genre gi mm. bu ñu gisee koo xamante ne vacciné wu na wala boog ñu jox ñu loo xam ne ñun mën nañ ko dégg su may dem yóbbaale njaboot gi dëgg la xam nga ndaak xel lu ci jiitu rek sonal borom mm-hmm. gis nga docteur boo gisee tey maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la safoo lool tey rafet lu toogaay bi boo gisee tey li waral fukki nit yi ñu laaj juróom bañ ñaar ñoo ca nangu dara waralu ko lu dul fausse communication bi nga xam ne moom la ñu dooree vaccin ya parce que dañ na bërëg wax ci vaccin yi ñu ne baaxul pour wàññi nit ñi la dañuy rey africain yi parce que planning familial bi deful efe ñu jógee ca loolu di wax pareeguñu góor ñi nga xam ne tubaarkaal lu leen lu nu am ci seen àddina góor buy dox tànk loxo nopp bakkan baat ba gémmiñ li la gën a ñor ci sa dund mooy sa ngóora fexe affaire bi di jub tey dëgër ñu ne kat boo vacciné woo yëf yi day tëdd dootul baax ñàkk nga sëb góor a waaw ñàkk nga sëb góor a yaa ngi may dégg xam nga loolu dafa garaaw tey amuroo toog nga ne ko boo vacciné woo ñàkk nga sa góor a mais day tàllal day du fi yëpp fi yëpp du fi taxaw ndax dara du ko jara ci àdduna kon fausse communication yooyu nga xam ne docteur am na moo tiital sénégalais yi ba fi mu ne vacciné wu ak dee la ñu xamale léegi lii sama problème man en tant que yow docteur ban communication ngeen utiliser waat yéen ngir dalal xelu sénégalais ba ñu mën a ñeme vaccin bi dem joxe seen yaram waaw li ngay wax dëgg la donc euh, je pense que li ñuy wax ci vaccin yi aussi du lu bees mm-hmm. parce que je pense que actuellement paysage médiatique bi ak réseaux sociaux yeeg yi nii jumta jumtukaayu mm-hmm. xarala yi bare moo tax mu amplifié wu mm-hmm. mais li ñuy wax ci vaccin corona bi <laughs> mais waxoon nañ ko ci vaccin yeneen fii vaccin polio bi ñu doon toqal nit ñi luñ ci waxul amul dem nañ ba naan ñaari toq sax ñaari doom i waaw defoon nañ ba yow xam nañ ko day vaccin polio bi pour wàññi nit ñi pour di pour xale yi bu ñu leen ko defaree pour bu ñu magee bañ a am doom la woon hmm. yooyu yëpp wax nañ ko vaccin bi nga xam ne moo si mujj vaccin contre cancer du col de l'utérus bi coow li xanaa yéen ñëpp dégg ngeen ko lu nekk lañ ci wax mais li am solo mooy boo xoolee liñ ci doon wax yëpp fukki at ñaar fukki at fanweer at ci ginnaaw ba léegi kenn gis ko cest à lépp liñ tuumaal vaccin yi hmm. bari na mais ba léegi li ñu leen doon tuumal kenn ko ci parce que boo xoolee li ñu doon wax pour wàññi askan bi la mais programme bi ñu ngi fi dugg 1979 ñu commencé ñàkk xale yi yéen defe naa ñu ngi siy juddu 1979. bari kenn juddu fi docteur. Hmm? amu fi kenn juddu fi yéen ñëpp defe naa yéen xanaa hmm. macha allah. su bari sëy nañ ci am ay doom. seen hmm. gis nañ ne ni donc loolu ay waxu caaxaan la. vaccin yi booy xool commencement bi. ñi doon tuumaal vaccin naan vaccin yi baaxul dañ doon wax naan dafa am lu ñu ciy def lu ñuy wax adjuvant. tout à fait que adjuvant boobu moo tax muy indi problème ci wér-gu-yaramu nit ñi. Mhm. léegi ñu ñëw xëy ñu indi leen vaccin yoo xam ne amul adjuvant. donc amul lu ñu fi mu nekk lu ñu tuumaal adjuvant boobu di foog ñu wut beneen li ñu wax bouc émissaire <laughs> maanaam tuumaal leneen ci vaccin bi. pour que nit ñi ragal. Mhm. mais problème bi mooy. actuellement est-ce que àddina bi fii ñu toog nii ñaata nit ñoo ci vacciné est-ce que xam ngeen. pare nañ deux cent millions de personnes. Hmm? Hmm. Sénégal ñaata vacciné gu. Sénégal amagul docteur parce que mi ngi doog a ñëw aussi. mais loolu mooy problème bi. cest hmm. à que est-ce que dañuy xaar ba àddina bi yëpp ñàkk ko ba pare. ba ñoom ñu wér ba ñu ñu door mais asu dooguma la baal ma ñëw mais euh, docteur bëggoon naa xam euh, vaccin bi euh, Sénégal bi ñuy envoyé depuis la Chine muy Sinopharm bi bi nga xam moom la Sénégal choisir vaccin boobu bu ñu xoolee gis na ni France daf ko refuser déjà. non non du France comment ça s'est passé alors wu ko. Mhm. parce que comme li ma la wax ni Sénégal choisirul benn vaccin. par bi ñëwagum pour mhm. non France rejeté wu ko parce que France dafa jënd vaccin AstraZeneca jënd Pfizer commencé ñàkku. production bi Chine li muy produire mënul satisfaire sax population chinoise. parce que Chine fi mu nekk nii ñoom vacciné wuñu seen population dañuy prioriser ñi ñuy vacciné. mais bon priorité priorité yi bokkul. parce que ñoom au lieu ñu prioriser cas grave yi parce que bari fa dañoo prioriser seen seen seen seen euh, population active maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyi ñu ne ñooñ nañ nag ñooñu pour ñiy liggéeyi mën a dem liggéeyi mm. donc peuple Chine matalul ñàkk amul benn dëkk boo xam ne day produire ñàkk ba ñàkk ba matal ko donc même Russie yi amuñu sax capacité de production fi mu nekk dañuy lëkkaloog yeneen pays pour que jël transfert technologie bi pour que ñooñu pour mën a produire seen vaccin mais à ce qui paraît docteur nga baal ma en fait euh, AstraZeneca bi nga wax léegi nii donc am na dëkk yu bari yoo xam te dañ ko rejeté bu ci mel ni Afrique du Sud benn benn muy Afrique du Sud ah. donc ah, te aussi la wax ni bientôt dañuy refuse révisé wu ko sax parce que dañ ko dem indi ko testé gis ne xam dégg ngeen ñu naan ay variant ay variant bien sûr dégg variant sud africain mhm. ñu ne efficace parce que li taxoon ñu commandé ko mooy efficace na parce que bu leen fàttali ko ne feebar bi Chine la jóge mhm. donc origine wu virus bi Chine la mooy mooy la le variant de Wuhan mhm. boobu moo nekk à la base de vaccin yi nga xam ne fi actuellement ci àddina bi vaccin yëpp ñiy defar ñëpp vaccin ci boobu lañ tàmbalee parce que yaa vaccin bu génn nii rek c'est parce que tàmbale woon nañ ko yaa huit mois avant donc boobu variant boobu kese moo amoon donc vaccin yëpp dañ ko bâtiroon ci variant boobu mhm. ñu demee ay ay variant yuy émerger ñu dem ñoom ñu testé ñu ne gis nañ ne seen variant sud africa boobu vaccin bi newuñu efficacité wu efficacité mais efficacité bi mu ci am satisfeeru leen mhm. donc ñu ngi toog di xoolaat mhm. parce que tamit étude bi pareegul c'était des ay résultats préliminaires la woon et puis wuñ ko woon tamit si échantillon bu bari donc ñu ngi poursuivre étude bi en attendant ñu poursuivre étude bi. Mhm. ñu ne nañ téye AstraZeneca bi. Mhm. jéem a xool beneen vaccin bu ñu te mais. ñun Sénégal fii amaguñu variant sud africain mhm. est ce que léegi parce que Africa sul si variant sud africain bi dañuy bàyyi AstraZeneca bi toog di xaaraat beneen vaccin boo xam ne xamul kañ la ñëw alors que efficace na ñun ci li nekk fii mhm. ku nekk kay waa ndaw si doon wax sànq muus mu nekk dañ <laughs> toj bopp ji <laughs> mën naa toj lu bopp ji na jëla <laughs> euh, xam nga vaccin yi dafa bari coow mhm. sénégalais yi ñi ragal moo ëpp ñi ñeme dëgg la léegi ñu bëggoon nga leeral ñu benn affaire. Mhm. Mhm. ndaxte dangeen am cible. Mhm. mat ñi ñooy njëkk a parce que li ngeen am doyul. ak ak ak ñi nga xam ne waa kër docteur waaw. Ah. léegi est-ce que ku mu dal ba nga wér. da ngaa war a vacciné wu. est ñi ko amagul bu ñu vacciné woo dootu leen dal. ak est-ce que parce que mat ñi nanguwul a vacciné wu dafa bari. noo ñooñu nan ngeen di def ba vacciner da ngeen koy def par force wala dafa am noo leen koy tëralee. force moom ci. voilà loolu force moom vaccin yi. Mhm. parce que état tamit dañ foog ñu xam ne état dafa am. Mhm. devoir clim bi. devoir am mooy protéger ay population mhm. maanaam lépp loo xam ne xam na ne lii dafa war a jariñ askanam wala lii ma war a aar askanam dafa war a fexe loolu nekk am place mu war a fexe ñëpp jote ci maintenant nag ku mu neex nga jël ku mu neex nga bañ a jël parce que amul loi buy obligé nit Sénégal actuellement muy Euh, ñu koy obligé muy ñàkku donc loolu du ci am forcé deuxièmement ñi nga xam ne dañoo feebar ba wér parce que feebar bi nag kaale feebar bu bees la ñu ngi door a mat at mhm. donc yéen xam ngeen ne xamaguñu maîtriser guñu feebar bi effectivement amaguñu assez de connaissance ci feebar bi gis nañ ne ñi feebar bu ñu wéree dinañ am immunité maanaam dinañ am euh, lu leen di aar mais loolu ñaata lay durer xamaguñ ko am na ñoo xam ne nag ci ñooñu 40 pour cent ci ñooñu bu ñu feebaree ba wér immunité boobu duñ ko am te gis nga moo tax ñu ne am nañu corona ci première vague bi deuxième vague bi amaat corona ñu amaat corona comme ñu loolu lépp nañ leen ñàkk le docteur je pense que tey euh, leer na am na beneen bu mu ñetti laaj la woon. waaw mooy laaj yi dernier laaj bi mooy. Mhm. Euh, ak ku mu dalagul ndax buñ la ko moom nga tontu. dina la dal xam vaccin moo tax ñuy wax efficacité. Mhm. xam nga loo loo xam ne nii moom wóor na à 100 pour cent loolu moom yàlla dong ko am. mais li ñu am njort mooy képp ko ñàkku am na njort ne loolu dina la mën a aar ci ah. feebar bi te parce que li ñuy wax am échec vaccinal maanaam nit euh, vacciné ba pare vaccin bi dañ naan ñàkk bi bañ a jar mais loolu luy néew la mais li ñu gis tamit ne mooy même boo ñàkkoo te ñàkk boobu jarul su la feebar bi attaqué ni mu waroon garaawe si yow souvent du ko garaawe ah, donc daal ñàkku ñàkk ñàkk mm. macha allah docteur je pense que que leer na malheureusement duñ sax mën a xuus carrément parce que am na ñeneen invité yu ñuy